salaamaaleykum salaamaaleykum yéen waa àdduna yéen waa Sénégal ah tey defam lu xew nag li xew mooy drapeau Macky Talla ñu gën koo xam ci Macky Thiam ñu tudde ko son excellence Macky Alaaji Macky Sall borom réew mi ginnaaw ba loolu wéyee ki nga xamante ni mooy LP di promoteur de l'internat xew ci jamono moo organisé lamb ju mag fële ci Arène national le 31 décembre ah loolu bis du ko gën a rëy mag euh, ñu fab drapeau bi nag tuddee ko Macky Talla mu delloo ko président de la république waaye mënoo tuddee Macky Sall drapeau fii ci Fass Colobane Gueule Tapée te doo tudd Mame Fall muy responsable politique fii ci Fass ñu yàgg ànd ak moom partout dans le monde loolu bu wéyee mënoo ñëw ci Fass te tudd Nafi Ndiaye mi nga xamante ni moo jàppale làmb ji 10 000 problèmes yi nga xam Médina la dëkk te ku ne xam na ni Médina ak Fa ak Fass ak Colobane dañu takkaloo man Moussa Diouf ñu gën maa xam ci ngañ waalo di aw Pape Diouf te Pape Diouf ci génération consciente ah loolu du mën a yomb làmb ji sax dina am surprise ndax làmb ji est que xam ngeen ni Pape Diouf mën na cee mën a ñëw incha allah ndax Macky Sall lañ ko tuddee mu tuddee ko Macky Sall ñaari Macky Sall moom bu nu àndee àddina tukki kan la nu boole la fëgala la nu boole bu ngor boole ki nga xamante ni mooy doomu jàmm gën loolu làmb mënu ko gën a rëy ndax kii fëgala moo koy boot indi ko waa Ngor ñoo koy boot indi ko waa Jàmmagën ñoo koy boot indi ko ah loolu kon nag xam ngeen ni du mën a yomb ca làmb ja man gëj naa ci làmb sax ndax kenn du wax làmb ca dootu du doo tudd Moussa Diouf 89 laa commencé aw ndey ngom Bambilor xëy na jot a amatul rek waaye ñi ngi ci biir làmb ji kon nag dan koy ubbeeg wayu làmb rek bu ndaw ah 10 problème artiste international moom it dina ci wax soxlaam woo ay xaritam woo ay fansam ndax am nay soppe ndax koo gis am na ku la bëgg Macky Talla Macky Thiam ñi ngi lay gërëm di la sant ndax yow yaanu woo ak Nafi Njaay mii di sama mag di sama xarit bu lam bu sa jeey ma way mbër ma waaf ca géew ba yande njaay mboro de laale ba xugóor la ñaari mbër bu tëddee njaaxaanaay man na damay laaj ku daan ku daan da ngay kaw sukki tëri leen léegi mbëri ngeen mu gën a mer la fanaano wàcc ma daan la wóorul waaye ku daan nee naa la da ngay féete kaw lambu yaayi borom lambu ji wuy dina borom son excellence yaa defar arène nationale jagle ko waa lambu waaye Macky Talla yow la ñu tuddee lambu ji nga delloo ko Macky Sall président de la République Sénégal dund leen te di baawaan maam fay nee naa la mama kuma jaay la ne woowee sa yaay. faas xam nanu yaay kan tele samba yaana ngan jaay maa la way lamb yaayi borome matar fay ngi ci biir moom it ñu fekko fas faas dolor mu kenn du tudd fas dolor mu ci dudul matar fay kon nag di problème mbir yaa ngi noonu gars yi tàccu leen ñu dugg ñu dugg ci science bi wagwana Yeah, salam alaikum, salam alaikum. Je m'appelle Mohamed Anfal, alias 10 000 problèmes. Tu waaw di nuyu tout les sénégalais ba pare di nuyu ko toute la presse di nuyu maam Fall bi nga xam ne kii faaleen la te naa ko jàppale ba mu xeeñ ba mu xasoo xul ba ñëpp yëg di bëggee waa Fass yëpp di bëggee mbër nu nous sommes des sénégalais on est des sénégalais dëkk bi bari na ay problème bari na ay coox nu bëgg ñun ñu am sax foo xam dañ fay dem ree kaf quoi dem ñibbi. mais pas grève xeex xuloo ñun danoo sonn si yooyu wang muy gën a gaaw di remercier Macky mi nga xam ne sama xarit la ñu tëdd ko làmb mu jël ko delloo ko monsieur le président Macky Sall Macky suñu président la de Baye Fall Macky mooy sunu président moom la fa yàlla teg nga nangu ko moo mooy président nga bañ ko nangu mooy président man bëgguma ku ma corrigé bëgguma ku ma sarax je te dis la vérité ba pare di ñaanal yàlla mbër yi dëkk bi métti na tar na instant bi mbër yi ay boy nit ñi ay boy ndaw lañu te Macky mii ñu tuddee làmb ji moo nekk ne si kaw ñii ay boy lañu xool entre banlieue la ak town combat suñu combat ñuy ba pare bëgg na ne booy am si dara parce que loolu lay développement dans ce pays ñun mala ay nit lañu ñu ñaanal yàlla mbëri ba pare di conseil mbëri muy mbër bu mën a doon nanu moytu affaire de violence di la vérité mbër liggéey la combat dafa metti arrêt dafa metti kurpañ boog mooy arrêt xam naa ñeneen seen waraf leerul noonu jàppale mbër yu ndaw yi nanu jàppale booy yi parce que boo si boo si ma sóobu si affaire lamb ji nii booy yu ndaw yi laa bëgg ñu ñu jàppale leen te yàlla moo tax parce que yàlla mooy si Alxuraan ko wa maa umiru illaa liya'budullah dana fu wàcc xol pour ñu jàmm ko jàmm yàlla nag mooy la mooy dimbali doomu aadama di ñaanal waa waa town yàlla na leen yàlla may ndam ah man waa town laa de damay ñaan sama mbër rek yàlla na ko yàlla may ndam mais non à la violence nañ ko bëri bëri bu nice ñu bëri ko bëri bu rafet ñëpp am jàmm kuy daan daan que le meilleur gagne maman maa ngi lay ñaanal et puis di la ñaanal yàlla yow waaw waaw Nafi Ndiaye maam Fall waaw ñu ngi si woo xool tournage jeunesse Fass Médina Gueule Tapée xoolal Colobane banlieue nu kenn ngir yàlla nanu na góor jàpp su góor réew mi xool benn loxo du tàccu bëgguma ñu toog feet di sànni ay xeer di na nu def dara ci réew mi quoi nit ñi avancé quoi nanu def benn pas nanu keree làmb sax wala sim wala sabar wala fuural mais coow coow coow rang rang muy xoolal rang muy Macky est-ce que dégg nga ne loolu rang muy monsieur le président non dañ koy ñaan yàlla xam du ko yàlla kii sama xarit la te turandoo la turandoo ko la président Macky Sall la ñu tëddee ko combat mu jël ko delloo ko président kii sama xarit la bàyyi lu ma defalul amul am naa droit di ko soutenir Baye Fall ah mais Fall njëkk yaaram mi ngi nii ñu ay Fall de du naay ragal de waagu waan waa walaande waatag waan maan sëñ yàgg nañ ko yàgg nañ koo dégg ci yow te yow benn kàddu rek nga am fa waaye bu nu nafi maa ngi ñëw waaye bu nu ñëwee fas de l'or fi fekk Matar fa yàgg na fi lool fi la juddoo fi la yaroo te bu nu di papay LP LP mi tëgg làmb ji Matar Faye wax ci wax ci li nga xalaat ci làmb ji la 31 décembre ca arène nationale boo paree ñu xool Nafi Njaay mi nu fekk sa moom it soo ko jox euh, Mame Fall responsable politique fii ci Fass bu nu paree nag Alaaji Macky Sall mi nu tuddee son excellence daa di tëj yeneen gars yi ku ci bëgg a wax sa grain de sel nga wax ko ndax mbir mi yaatu na bisimilah. bisimilah rahmaani rahim salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ku nekk si turam ak santam di commencé nuyoo bi si Issa Black di am ci Saada Isam Seck Lom 10 000 Makitaara Mam Fall euh, euh, Nafi Cissé Nafi Ndiaye sama sama xarit sama doomu ndey ak euh, Assou bu ma nuyoo ñëpp su nekk si turam ak santam damay bañ a juum parce que fii ñi fi nekk ñëpp c'est la famille damay bañ a juum dama lim selon ko rek ñi nekk ci table bi bon dama bëgg nag ñu xam ne làmb ji dañ ko tuddee mag Makitaara mais du mag yi làmbu Fass la parce que ñun ñi fi taxaw ñun ñëpp ak makista makitaara mi ay copains d'enfance lañu ñoo foowandoo ñoo defandoo lépp bu ñu ko tuddee bés ñun dañu war a xar suñu tànk tubay ñëw ci bon du ma wax sax euh, ma ma jógee ci mag yi ma ñëw ci maam Fall mi maam Fall euh, yàgg naa ko soutenir de loin nag mosuma dem këram mais dama ko yàgg soutenir de loin parce que doomu Fass la am na élection député yoo xam ne dama xar sama tànk tubéy ànd ak moom parce que doomu Fass la bi passé aussi idem man dama gëm ku bëgg fas te ak lu ñu munti wax bon ñu bari ma bañ ko nëbb ñëpp nëbbu ko sax ñu bari xam nañ ne man du ma fréquenté ñii mais man makiste pire la man ak Macky Tara mii toujours ñu xuloo ci Macky sàll ànd xuloo ci wax ci lu ne parce que man dama bëgg Macky Tara Macky Sall du moins ñu tuddee ko Macky Tara mi ñu tuddee ko làmb ji mu jël ko tegaat ko ci loxo Mame Fall Mame Fall dellool ñu ko le président de la République le président de tous les Sénégalais boobu muy benn point rawatina suñu doom tëgg ko làmb ci muy Petit Lamine Petit Lamine sama doom pire àqan sama doom pire la bi ma ñëwee kii di ma wan naan ma Petit Lamine moo ma tuddee làmb ma ne ko def na lu ko wax parce que papam la ko tuddee papu Petit Lamine suma xarit la suma doomu ndey la suma promotionnaire la maa ko dugal Fass ba mu am fi jabar ba kiy juddu fi son père kii këram bi ma fay fréquenté si magam gabar du tey yàgg na avant muy tukki kon dama bëgg ñu xam ne rek ñu ni neen la képp kuy doomu Fass bu bés baa ñu wu Euh, euh, gunge suñu marraine bi ak suñu parrain bi ñu def ko bës bu rafet te xam ne waa Fass a xewle bu rafetee waa Fass la bu ñaawee waa Fass la kon ñun waa Fass ñoo ñoo xewle je vous remercie vous merci jërëjëf. ah Matar muy sama mag te sama xarit yàgg ànd ak maam Fall yàgg jàppale ñun ñëpp maam Fall mi nga xamante ni moom nitu ñëpp la chaque jour damay wax ni Fass maam Fall yow ku la jàppalewul dafa soxor man man ma koy wax ndax Fass laa dëkk ndax yow yaru nga. baax nga yaatu nga man am naa suukar am naa ceeb waaye bu koor jotee sama jabar moo naan Mame Fall moo fi indi lii ma ne ko Mame Fall daal loolu yëg-yëg la li Pape Diouf naan yëg-yëg la di ko way yow yëg-yëg googu dafa nekk yow da nga noo yëg barke Serigne Babacar Sy chaque jour ma wax ko xam nga man waykat la waaye li may gis fu bari du bari ndax ma lu ma yëgul du ma ca dem lamb ji nga xam ba ma ko delee way 10 000 bu yàgg 89 ba nëgg ma woowul du dem Gaston daf may woo ba sonn man ko baal ma yebale sama jarbaat manjaay mu ñëw way làmb ji waaw man amatuma jot yow nag dangaa baax yaatu yaru yow tey ministre nga war na doon barki Serigne Babacar Sy Mali ministre tàccu leen loolu Nafi Ndiaye vous la parole maa ngi nuyu ñëpp di leen ziyaare ku nekk maa ngi leen nuyu sa tur ak sa sant di rafetlu assistance bi ñi toog ñëpp ak presse bi ñëw di leen nuyu yéen ñëpp soo limee doo juumee da nga dul matale maa ngi liim ñëpp Moussa sama mag sama xarit maa ngi lay ziyaare di la bëggee di ñuy LP mu nekk xale boo xamante ni du ma tàyyi di ko wax xale boo xamee ne muy lamin xale bu yaru xale bu am ambition xale boo xam ni Fass la juddoo fi la màggee mais mënuñu ko waxal dara lu dul gëm boppam di liggéey taq ma nag di ñëw ci man daan ma tuddee ay drapeau chaque jour ma wax ko du ma tàyyi di ko wax bi may tuddee drapo boobu xale bu ndaw la daan ma fekk si fii tuddee ma drapeau ma daan dem di ko fa fekk man ak Ibou Fall si te mu ndaw mais xam na li may wax. ba léegi mu nekk macha allah promoteur bu mag di dem arène nationale ma di ko ci gunge nag. a cent pour cent ndax man su ma nee takk naa rek taq naa mais su ma nee ma rek ma su ma nee bokk naa bokk naa mais su ma nee ma bokk ma ku nekk xam na ma Fass gi laa juddoo màgge fi kenn du ni bokk naa ci lii wala génn naa ci lii musul am may gërëm samay ñaari waajur nag di sant sama wasila Seydi Aboubacar Sy Serigne si man Mansour yàlla na fi yàgg te wér waaye suñu jógee ci loolu dañuy dem ci drapeau bi ndax lii euh, kiy wax rek musaa wax mooy dëgg euh, foo jaar rek am na bunt ndax bu ñu nee drapeau Macky muy président de la république Macky Sall ñu dëkk Gueule Tapée Fass Colobane bunt bi mara kii la euh, Marina Marème Faye Sall sax bunt bi Maam Fall la sotti seeg def si la bunt bi Maam Fall la te nag nit doo jaar fenn fu ci bunt boo bëggee jaar ci fenêtre da ngay tëb te boo tëbee lu ne mën na la cee dal kon nañu jàpp bunt bi te xam ne bunt bi mooy maam Fall man nag duma ma du faas du ma ni damay dugg ci politique à cent pour cent wala damay dem ci lenn te duma ànd ak maam Fall mi kon loolu mooy dëgg mooy yoon drapeau bi ci boppam trente 31 la décembre ñu ngi ciy woo bépp xale bépp mag bépp promoteur képp koo xam ne rek làmb ñor na la ñu ngi la ciy woo ci bés boobu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Ah, arène nationale bi nga xamante ni moom. waaw foofu lañ koy defee kon nag ñu ngi wax jox ñëpp rendez-vous le 31 décembre incha allah LP woo ñu fa muy drapeau yi ñu delloo ko waat président Macky Sall te ku nekk xam na ni président Macky Sall Mame Fall moo ko toogal fii ci commune bi gël Tapée Fass Colobane toogaat nii mu toogee nii représente fi président Macky représenté fi képp koo xam ne yaa ngi bokk APR wala benn bokk kon loolu dañ koy sargal te mu ngi xat nag mais dafa bàyyi lépp toog mooy nuyu nag assistance bi yëpp. may nuyu ñëpp képp ku fi toog rek maa ngi lay ziyaara soo limee doo jummee da nga dul matale maa ngi ziyaare ñëpp di bëggee ñëpp Moussa li nga wax dëgg la man maa la bàyyiloo sa lépp nga ñëw ndax yow loo wayul baaxul loo duggul baaxul ndax dangaa baax danga yaru li nga wax maam Fall ci yow moomu la nekk bu coow li baree du yow waaye bu jëf ji bëree yow la ñu yaatal xol yi nag tey déggoo tey gëm li ñuy wax tey def li ñuy wax sotti ceeg def ci la bu ñu gëmee loore dañuy avancer Eh, bu ñu àndee say bale kenn mënu ko damm benn ñaar ñett la ñuy damm ku ne yàqale ku nekk sa yàqule ku ne dem toog te bu ñu demee toog peut-être da di yaakaar ni ki ngeen di yàqal ngeen di yàqal fekk ne moom mi ngi dem te demu leen wasalaam. ay yaa ju baax noppal doomam wala doom ju baax noppal yaayam yaa di jigéenu asmaalik njaay alaaji asmaalik mooy sa baay yaay jigéenu ndagga mbay yaay jigéenu papa Njaay ma ci néegi France ana jigéenu alaaji dem ajaratu fari mbub mi jooy ca noppi gu ne sa yaay mbuuda aminaak baaba aminaak ñetti doomi amina yu nga fi njaay dundal loo dund doyul may tàmbaleeti door aye yaay ñaay jal joob sangomaare ñaari mbër bu nu tëddee njaaxaanaay dix mille problème damay laaj ku daan xam nga ni ku daan kaw lay féete sukki tëri leen léegi mbër ngéem bu gaynde mer la fanaanoo wàcc mat daan naa la wóorul ku daan na ngay kaw makki lañ ko tuddee mu delloo ko turandoom son excellence Macky Sall borom réew mi kooku mooy Siri Maram Faye Sall alaaji Macky taara waaye nee naa la mama ku ma jaay la ne sa yaay yow Mam Fall yaay responsable politique fii ci Médina ak Gueule Tapée ak Fass ak kolobaan xanaa xamoo ni Fass a jur Medina ma fal Fass bëgg nanu la asalam Fass bëgg nanu la dolor mu bëgg nanu la man mi di artiste dëgg asalam Fass maa la raw mama ku ma lani woowee sa yaay yaa a noppal doomam wala doom ju baax a noppal yaayam sama jigéen baa ngi ajaratu maam fàlla nay woowe yaa ziyaar ji bëti araam màkka ku fa dem ñu soppi la soppi sew nan la al ajaratu maam faal tey la sàmba yaane ngaan maam faal wàlli sinaay jal jóob sangomaare may tàmbaleeti door ay ñaay jal jóob sangomaare a LP waaw mais signature contrat bi kañ la jox. mu dugal ci mu wax ci bale après loolu mooy tëj. Ah, ñu joxe rendez-vous gars yi. léegi comme ni nga ko waxee rek euh, Moussa ci kàttanu yàlla xam naa LP day jël wax après Maam Fall jël wax Maam Fall nag moom euh, damay wax ni que rek rëccuwuñu li ñu ko doon euh, tege ci commune bi. parce que matale na ko yaa ko wax léegi macha allah matale na ko président Macky rëccuwuñu li nga ñu doon joxee maam Fall jeunesse bi ñu ngi ciy gis seen bopp mag ñi ñu ngi ciy gis seen bopp xale yi ñu ngi ci gis seen bopp ñun ñu ci ginnaawam ba luñ ci góobee gar ko maam mi ñoog moom ba lëz parce que lépp ñu bëgg rek mi ngi koy def ci faas ci jigéen ñi ci kaw ci lépp nag ku soxorul wax ko loolu xel day fàttu mais man maa ko war a wax te dama koy wax xam naa nag LP daf koy jël après wax li nga xam ni moo war a jëm ci bés bi ak lañ ca war a doxal après ñu jox maam Fall tëj ko ndax dafa xat te dafa am fu muy war a dem. waaw waaw. asalaamaaleykum. maa ngi nuyu euh, Matar Isam euh, muy gaaw Lom Matar Faye euh, Touré Moussa Nafi. Manfal. Yassou voilà très bien. bon tamit maa ngi nuyu ci <laughs> bi quoi nu mu tuddati. LP. yow moom zéro faute bon bu ma woowee Matar ne ko Matar Faye dañu yàgg wax si si affaire président bon ñuy wax si si si dañ koy jàppale 100 pour cent moom moo fi nekk man. ma man moom ndaw ndaw laa yow Fass moom Fass Fass sama sama Fass la yow ak ak Matar Faye yéen a yéen a yéen a yëpp si ah. waaw man sama wax du kii quoi dinañ jàppale ma Fass cent pour cent LP tamit zéro faute dina ko cent pour cent moo naa merci beaucoup xam na fi dara ñoo doon toog face di pësatondo boobu nekkagul président mu ngi jàngee université maam mii xam na boobu muy kër maam Fall mook rakkam Aliou Sall ñuy toog face di bëlot Matar Faye mii may wax xam na ci dara di bëlot ba ay 4 heures du matin 3 heures du matin ku baax la mu amul benn problème président bu ñëwee day toog foofu bëlot génn dem yoonam. amul benn problème. booy bi tamit ku baax la LP. Mm, LP si xam naa ko ñu nag papam ñu nag papam la woon yàgg na. Mm, waaw mm. ñu nag papam la woon ñoo foondoo ñoo màggandoo. yaayam sama mbokk la. waaw kon booy kontaan nañu. waaw waaw président waa Fass la. maam Fass dañu bëgg nag boo demee si président ne ko doomu Fass aye waaw mu jàpp si bu baax a baax. li ma si di bëgg toutes les presse ñi fi nekk ñëpp LP man je le connais quoi LP du combat kate de ay concert promoteur ay nit booy bu ndaw la góor jàpp nit danga nga war jéem dara góor-góorlu mais pas yaakaar si poste jàmbur ak kee LP xam la lay géem pour développer géem pour employer géem pour yokk société te fàttali dëkk mais représente maam faa mi faa nekk jigéen ba tey su ma soño mu nekk sama mag li muy def dama siy gën a pëtëxal damay dugal tànk dugal bakkat dugal bakkata dugal ñandaxit je te dis la vérité quoi jigéen la mu ngi géem nekk si benn société quoi di si job dañ koy ñaanal yàlla et puis dañ ko war a jàppale kii dañ ko war a dimbale alxuraan nee na wa muy sëri xaasin isa xasada xam nga li ngeen ban mooy añaan ku jàngul nag jàngoo moo tax yàlla ne arrahma allamal quran allamal insan jàngal ko nit yàlla na la yàlla jàppale maam fa barke yent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam di bëggee LP LP kaay wiril ngir yàlla ko waxtaan bi yëpp di nuyu bépp kilifa diine ak bépp kilifa aada bu ñuy seetaan di nuyu moo ko internet yi ñëpp dam contentement fierté bu baax a baax si bés bi wax fa dëgg yàlla di nuyu sama papa yu fi ñëw ñëpp ak samay am di jàmm staff LP Events bi ñëpp jël nuyoo staff LP Events teg ko si loxo El Hadj Dieng muy manager LP Events mu yegg ma ko équipe bi ñëpp donc maa ngi remercier ñëpp di nuy parrain bés bi muy Makitara jël nuyoo bi tamit teg ko tamit si loxo Mam Fall muy ki nga xamante mooy suñu responsable politique Gueule Tapée Fass Colobane mu doon suñu yaay doon suñu xarit mu nekk si gox bi fii du si liggéey liggéey bu rafet macha allah. doom contentement fierté bu baax a baax si teewaayam fii nii parce que di naan gulet muy jàpp si mbirum LP events yàgg na si taxaw depuis bi ñuy débuté ba léegi daanaka lu yàgg la euh, àndal doomu ndeyam asu fay daanaka mooy bras droit Mame Fall di léppam maa leen ñu remercier bu baax a baax tey bàyyi nañ seen liggéey yëpp ñoo toog fii donc du def loolu du leen remercier bu baax a baax a baax si loolu noonu donc tey boo gisee ñu jël drapeau ki nga xamante mooy Maky mu jël tuddee ko li nga xamante ne mooy euh, drapeau 31 décembre muy diggante doomu Diamaguène euh, ak Feugeula bu Ngor mu doon làmb boo xamante ne làmb jeunesse la làmb espoir la daanaka doomu jàmm gën ku ko wax xam ne ni si wàllum làmb kenn dootu ko présenté Feugeula bu Ngor tamit si wàllum làmb tamit kenn dootu ko présenté te ñu jël drapeau bi tuddee ko Macky Tara bu ñuy dippee Macky la donc mu jël drapeau bi tuddee joxaat ko son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal drapeau bi ñu jël ko teg ko si loxo Mame Fall muy responsable politique Gueule Tapée Fass Colobane mu yegge ko président comme day tey jii loolu moo waral tey fii suñu bës tey bés bi daanaka mun naa wax ni Nafi Ndiaye daanaka lépp moom la parce que tey jii nii moom moo présenté ki nga xamante mooy Macky Talla mu doon euh, trondo président de la république du Sénégal euh, bu ma maanaam Macky nag yàgg naa dégg tamit ay ay jalooreem fii su koñ bi parce que ñun euh, Fass lañ dëkk wax fa dëgg yàlla ñu yàgg te ku ne làmb xam ne làmb facteur de développement la te donc ñun bi ñu si yàgg nekk yàgg na def bi ñu nekk xale ba léegi ñu doon tarbi yenn mbër yu bari yoo xam ne tey jii bi ñu demee ba commencé bëri arène béy nañ si suñu waar bu baax baax ba yàlla dogal tey ñuy ñuy ñuy tëgg euh, arène nationale comme tey dañuy sant yàlla bu baax a baax te di muy débuté booba tey tamit euh, Nafi Ndiaye mu ngi siy jàpp moom tamit bu baax a baax du ma def lu dul du ko remercier parce que sama yaay la mu may soutenir ci si côté yëpp mu may jàppale si côté yëpp waaw bu ma commencé dugg si làmb arène di tëgg arène ba léegi mu may boole ay nit duma boole ay relation yu bien te maa ngi siy gis sama bopp bu baax a baax kon duma def lu dul du ko sant bu baax a baax du ko gërëm parce que tey jii bés bu mel nii yàlla ak moom la maa ngi koy remercier waat bu baax a baax euh, waa LP event tamit équipe bi tamit ñëpp remercier nañ ko ñeneen ma yegal ko ko te yegal naa ko tey euh, drapeau bi muy noonu tey euh, du ñu def lu dul am contentement fierté bu baax a baax di si woo jeunesse sénégalais yëpp parce que bés bi 31 décembre lay tombé ku ne ne 31 décembre xam ne fête la jour 31 décembre daanaka jour boo xamante fête la boo xamante ñëpp ñu ngi siy bàyyi xel comme ñu ngi si woo jeunesse sénégalais yëpp ñëpp ñëw teewee ko matee ko comme naan samedi lay tombé nag incha allah rabi doomu jaama gën a fëgala bu ngoon am na yeneen yeneen journée espoir yu si am waaw face à face bi nag demee la incha allah rabi suba samedi le 15 euh, euh, demee incha allah le 15 jeudi le 15 la match foot mu ñu nekkee Médina rue 6 angle 15 ñu si woo presse bi ñëpp donc presque yëpp ñuy ñëw tewee loolu noonu ñu leen siy woo bu baax a baax a baax a baax waaw à de dix heures du matin la 10 heures du matin parce que dañ ko bëgg a teel mu teel a jeex waaw ñu ngi siy woo presse bi ñëpp ne ñëpp tewee loolu noonu drapeau Macky la waaw mu jël drapeau bi dippee ko son excellence monsieur Macky Sall mu ànd si Mame Fall di jigéenam di léppam Mame Fall ku ne Mame xam ne Mame yàgg na daanaka daanaka di def social yàgg na def lu bëri fii nii si kàcce bi parce que wax naa ko si débuté bi bu may débuté sànq si euh, wax bi maa ngi naan Mame Fall yàgg nañu taxaw donc ñun du ñu sëkk jëf parce que ñun fu ñu bokk ñuy bokk maanaam fukk pencer ñaari comprendre bokk si Ndakaaru ñun luy waaye defar bu nekkee juróom la sax wala fukki dërëm sax dañ koy wax waaw ñun ñëpp lañ fi nekkal ñun dañoo ñëw pour liggéey parce que usture lañ yor wax fa dëgg yàlla usture lañ yor te structure bi booy xool ay jeunes la ñoo fi nekk daanaka staff bi ñoo nekk nii am na ñu fi ñëw maanaam lu mat ay cinquante jeunes ñu ngi si di liggéey si structure bi te boobu ba depuis quatre ans gars yi ñu ngi koy doxal yàgg nañu def nag ay ñu xam wa xam duñu si gan duñu si cuune parce que façon bu nekk def nañ ko fii def nañ fi Bercy Dakar def nañ fi Sorano def nañ fi stade Iba tamit def nañ fi tamit arène nationale def nañ fi événement yu bëri yoo xam ne Sénégal ku dugg si YouTube bi tapé LP event da nga gis événement yu mu def yëpp comme donc duñu bopp si réew mi gars yi xam ñu te wax fa dëgg yàlla partenaire yoo xamante tey ji àndal nañu àndal si làmb bi donc maa ngi sant bu baax a baax di leen gërëm ku si mel ni King Boisson Katrina comprendre maa ngi koy gërëm bu baax a baax tey dem naa foofu noonu mu am lu mu defal man maa gërëm bu baax a baax Kanji production maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax comprendre Kanji production moom tam mi ngi si jàpp bu baax a baax ak bépp partenaire boo xam ne tey ji yaa ngi si jàpp ku si Abakara Abakara moom tamit mu ngi siy jàpp bu baax a baax a baax Papa borom office équipement moom tamit mu ngi siy jàpp borom kër gi immobilier ah, MB mémoire bois moom tamit maa ngi koy jàppale maa ngi koy mu bu baax a baax Nokia borom Nokia automobile di jaay oto yi moom tamit doomu Faas la tamit mu def maa kay sant bu baax a baax di ko gërëm Nokia du ma taay du moom tamit di wax si moom lu baax parce que jeune entrepreneur la boo xamante mu ñuy faas du ko doxal comme ñoom ñëpp ñu ñuy gungee si ñu bu baax a leen gërëm di gërëm bépp képp koo xamante tey jii nii yaa ñuy ñaanal laj muy kilifa diine kilifa aada yi nekk si ñëpp yéen taala suñu loxo bu baax a baax ñu gën ñu ñaanal xam ne ñun tamit waaw ñun tamit ay xale yi nekk si yoon lañu waa ba ma fal ko sam papa la maa ngi koy maa ngi koy ziar bu baax a baax di ko woo tamit bu baax a baax Euh, Ousmane Ndoye moom tamit sama papa la comprendre na baax moom ñoom ñëpp képp koo xamante yaa ngi yëngu si wàllum euh, euh, acteur de développement la lépp luy développé réew mi rek maa la si woo bu baax a baax baax a baax parce que ñun réew mi lañ fi nekkal jeunesse bi lañ fi nekkal comme donc di wax ni gars nañu bàyyi xel bu baax a baax jàppale waat jeunesse bi parce que lépp lu ñu def si ñun rek jàppale structure bi rek dañuy jëlaat retour bi tam joxaat ko tamit jeunesse bi tamit parce que duñuy taay tamit du du créer tamit lu bari comme donc te lamb facteur de la comme bépp lutteur boo xamante tey yaa ngi si làmb bi da nga war di sentir sa bopp tamit si làmb bi bu baax a baax a baax a comme donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dinañ jox rendez-vous le 31 décembre stade arène nationale doomu jaamu gën ak qualifié bi qualifié doomu jaamu gën ak fëgala bu ngor comprendre doomu gàmbal ak fëgal bu ngoon ñoo jox foofu rendez-vous 31 décembre incha allah rabi billets yi 2000 la 3000 ak 5000 amateurs yi ñu teel a ñëw samedi lay tombé midi dañuy tijji stade bi incha allah rabi ñëw drapeau Macky mu jël drapeau bi delloo son excellence monsieur Macky président de la république du Sénégal ànd si Mame di euh, suñu euh, ki nga xamante mooy responsable politique Gueule Tapée Fass moom la yàlla a baax tappe Mame Falla ngi di responsable politique bu mag yàgg a jàppale son excellence Macky sal lépp lu nu tuddee lu takk ci Macky Sall ñëw teew def ci dugal ci loxoom wax ci grain de salam ñaanal ci ki nga xamante ni moo ko organisé muy LP Macky Tara ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm 10 000 paroles bi nga xamante ni moom li naan xorom ci cin la bu ci am bu xorom amul ci cin dara du neex kon nag Mame Fall vous la parole asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu euh, ñi fi teew ñëpp kenn ku nekk ci tuuram ak santam waaw ma yëkkati kenn ku nekk ci tuuram ak santam di rafetlu jotaay bi bu baax a baax euh, kenn ku nekk ñi fi taxaw ñëpp mun naa lim seen tuur ndax ñëpp la ma xam ñëpp laa xam ba tax na xam naa. damay jukki ay deux ou trois personnes rek parce que depuis sànq nafe ngi wax naan dafa yàkkamti parce que dama war a voyager si guddi gi nii teraanga bi ma nafi ak euh, Maki Tara sama frair ji moo tax ma toog fii parce que ñi may àndal presque ñëpp dem nañu mais awma seen fay ndax ku xool affaire yi nu mu demee ni nga xam ne man li ma wax sama xol laa ko tibbee awma seen fay euh, ñu tuddee la lu toll ni drapeau nga xamante na ñëpp moom la ñuy wër nga jël ko de delloo naa ko président Macky Sall te ñëpp xam nañ ne président Macky Sall ku tudd Maam Fall. Mm. moom nga ciy teg kon man loolu duma ma ci duggantu du dugg ba ci biir xam ne sama lépp président Macky Sall la moo tax ma toog fii tey ba ñëpp naan may Maam Fall du non seulement Gueule Tapée fas Colobane mais ñëpp foo tourné ci Sénégal ñëpp xam nañ kuy Maam Fall te kan moo tax ñu xam Mame Fall kenn la muy président Macky Sall kon lépp lu ñu tudd mu jëm ci turam loolu duma ci xaar duma ci dellu gannaaw damay dugg ba ci biir biir takk ci rib nekk nag doomu Fass toog fi ak waa Fass kese ak samay mag samay rakk ku ci mel ni euh, Isaac mi ma nga xamante ne moom xàmmeetuma woon sa karamam ndax moo doon moom ak sama mag ñoo doon ànd ak euh, Saliou moom it moom ak sama mag ñu doon ànd uh, kii Fall Sadibou waa Sadibou Matar Matar depuis 2017 ba léegi saa avant bien avant loolu wax na ko léegi nee na moom président rek la gëm bu ko waxul sax xam naa ko lépp lu ñu organiser moo fay jiitu kon kooku bu waxee ak bu yépp xam naa ko euh, euh, Petit Lamine nag dafa nekk xale boo xamante ne xale day am ambition mm-hmm. moom am na ambition xale dafay am jom am na ko xale day am fulla am na ko kon kooku man dama ko nawloo ba mu fi ñëwee keroog sax maa ngi koy wax euh, Nafi ne ko xam naa ko bu baax a baax ndax depuis 2017 li ma gis man ak le maire Ousmane Ndoye lépp lu ñu sumb ñoom Petit Lamine ñëw ci jiitu kon kooku même bu budul woon nag da ko tuddee Macky Sall moom bu ma woowee rek man maa ngi ci biir waxatuma laa turu Macky Sall bi ci dugg kon man maa ngi ci woo ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm nag Macky bu baax a baax di ko gërëmaat ndax euh, ñu tuddee la nga delloo ko président ne maa ngi koy teg ci loxo Mame Fall mu yóbbul ma ko président Macky Sall kon loolu du ma def lu dul jël ko ak euh, fierté ak contenté di gërëm bu baax di gërëmaat na fi di gërëm ñëpp di si woowaa waa Fass yëpp ne leen nañu ñëw euh, bis boobu di lu ndaw di joxante rendez-vous le 31 décembre incha allah. ni ko 10 000 problème waxee léegi mi sama doomu baay euh, Fall njag maa ngi lay gërëm bu baax di gërëm sama frère euh, Moussa Diouf ak ñi mu àndal ñëpp sama chéri boobu toog ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di ñëpp di leen jox dig daje le 31 incha allahu rabbi ñu tase arène nationale bi nga xamante ne président Macky Sall moo ñu defaral bijou boobu jagleel ko waa Sénégal ak monde arène national ak monde lamb di gërëm ñëpp sant ñëpp di leen jox daje dig daje le 31 incha allah bu kenn wuute na waa Fass yëpp génn xam ne waa Fass a xewle doomu Fass ay euh, tëgg làmb ji tuddee ko doomu Fass doomu Fass delloo ko doomu Fass ñu àndandoo teg ko ci loxoy président mag Sall ñu indiwaat ndam di Ndakaaru comme ni ko dinin problème waxee wa